en tout cas li nga xamante ne moom mooy euh, urbanisme ak euh, logement donc àdduna ci euh, ci benn émission wala fu ñu ko invité woon ci benn média de la place joxe na li nga xamante ni moom mooy ay alternative wala ay perspectives yoo xamante ni moom la nguur gu bees gi lay fas yéene def donc pour mën ko alléger bu baax a baax muy le prix du loyer bi nga xamante ni sonal na loolu lay askan wi la donc ñu tàbbi ci point boobu la Djiby Sarr Dione conseil des ministres lan lañ a xaarandi la baisse du ni kii di secrétaire d'état les Sénégalais que cela veut dire bon tey jii euh, premier donc je dirais même deuxième mhm. wala sax ñetteelu ndajewu gouvernement bi yëpp mhm. mais conseil des ministres bi mooy nekk ñaareel suma juumul bi ñu mhm. sampee gouvernement bi ba tey mais ñoom seeni gisee mën naa am mooy ñetteel wala ñeenteel voire ginnaaw ba ñu noddee ñi nga xam te ne ñoo jiitee lii di ministère yi donc tey jii lu bëree bëree bëri bëri lañ ciy xaar déjà su ma njëkkee ci li nga xam ne mooy la premier ministre Ousmane sonk xëy na jombul dinañu wax kañ lay dem ci assemblée nationale. Mhm. parce que déclaration politique euh, générale comme niñ koy faral di defee. donc euh, xëy na jombul dinañ ci xam dara. Mhm. fii ay ay fan yu néew wala ay simili yu néew. Mhm. waaye beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de changement et de réaménagement. donc déjà du côté des force de défense et de sécurité donc maa ngi gis sa sa sa sa internaute yi ñu ngi laajte lan moo dal Pape Abdoulaye Touré xam naa am dina leen ko wax insha allah. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, ñu leen ñu leen di nuy bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, mais ci wàllu police. donc changement yu bëri ñu ko ci xaarandi. ndax euh, comme xëy na tombe la wala ay gaaf. donc li ñuy wax nii peut-être mën na nekk prétexte comme yu ni mel ñu ñu waxtaanee ci. waa direction avant ñu yegg ci direction yi ah euh, je dire ma ne ci ci fi nga xamante ne ni moom mooy police ay police ak mhm. gendarmerie ak mhm. lépp lu soxal baal takk der yi mhm. xam naa ne boo moytul tey jii nii dinañ ci dégg ay quelques changements ki nekk seen bopp nag nga xamante ne ni moom mooy le ministre de l'intérieur donc su ma waxee waa police mooy Jean Baptiste donc parce que su ma juumul ki nekkoon ci euh, euh, bopp police moom mooy euh, Mbisaan avec ce contrôle ah du Seydou Bokar yàgg. Mhm. moo nekk ci bopp police. donc xam naa ne jombul incha allah euh, mënees nañu am ay ay ay changement yu bëree bëri bëri yoo xam dañ ko ci opéré bëgguma cee xóot nag. Mhm. waaye lu mel ni OCRTIS. mooy ñiy gérer wàllu. Euh, caytu gi ci ci ci dorog yeeg ñoomi seen donc repression trafic illicite yi donc waa waa daafak yooyu yëpp en tout cas boo moyul xam naa ne fii ci kanam dinga ci di nga jot ay ay leeral yu bëri mhm. waaye ñëwaat ci fi nga xam te ne ni moom mooy les les directions mhm. direction yi posé woon nañu question à savoir ne ndax dañuy yegg ci euh, demande de candidature yi appel à candidature yi plutôt mhm. pour ñi nga xam te ni ñoo ko yeeyoo teg seen i ay dossier ñu caytu ko après jox ko ki nga xam te ne ni moom moo gën a adapté wu pour gérer profil bi ou pour yenn ci ay direction c'est à fait normal te xam naa ne foofu la ñu nar a yegg ci yenn yi mais am na yenn yoo xam ni xëy na jombul mën nañu bañ a yegg sax ci appel à parce que dafa am yoo xam yu pressant la. Mhm. yu ñu war a régler daar daar daar ay défis yu colossaux yu nekk ci yenn ci ay ay makkaan. Mhm. yoo xam te ni il faut que ñu apporter ci des changements parce que loolu mooy permettre ah, ministre bi ñu dénk wàll woowu ci secteur boobu. Mhm. donc mu mun a àndandoo moom doxal. lu ci mel ni enseignement supérieur man j'ai vu docteur Abdourahmane Diouf. donc depuis quelque temps. moom moom biñ ko biñ ko nommé léegi mu par di xoolaat bànqaas yi di yeesalaat. donc mu nekk tamit beneen secteur boo xam te ni bu bëri problème. Hmm. mille mille waa waa mille waa mille dix sept dix sept problème. donc enseignement supérieur recherche ah parce que foofu dañu ciy xaarandi euh, ban recherche scientifique pour le Sénégal de demain mhm. loolu la ñuy xaar fi mu toll nii mooy ci wàllu euh, recherche yi dañ ko manqué woon soxla nañu ko mhm. euh, surtout côté boobu du côté de l'éducation surtout nag bi nga xamante ne ni moom mooy priorité bi di santé santé tamit nekk na ay réformes yoo xamante ni ñu ngi ciy xaarandi l'actuel ministre de la de la santé waaye nag comme loi bi nga wax mooy wàllu wàññi dund gi. moo soxal waaw. Dakar gi yëpp moom la ñuy déglu. dund gi mooy lu cher li ñuy li ñuy jëfandikoo. ci mhm. ay ñam. Mhm. boole ceeg dëkkuwaay bi donc Dakar dafa metti parce que da ngay gis luwaaye boo xamante ne ni e, fii rek ngay gis ci réew mi. Mhm. E, li ngay fay ci luwaaye mooy ëpp li nga xamante ne ni moom ngay fay ko ci sa salaire. non sérieux réew bu Sénégal rek ngay gis. ma ne ko bam di loolu. réewum Sénégal rek ngay gis réewum Sénégal kese ngay gis. Uh-huh. li ngay fay ci loyer muy ëpp li nga xamante ni. moom ngay ci sa salaire. te alors que. Uh-huh. lu mu dee dee dee lii di loyer bi waroon na sax nekk muñ ceeru li ngay fayeeku ci sa salaire. Uh-huh. su ma ko waxee mooy kii fayeeku cent mille. mënoon na am loo xamante ne ni moom mooy loyer bu toll ci vingt mille wala vingt cinq mille. ci gàttal quoi. pour wax. nga xamante ni li ci des di nga ci mën a dund. Mhm. mais fii d'habitude kii fayee ko cent mille moom mooy kii fay loyer deux cent cinquante mhm. te alors que loolu loi woo loi woo règle loo règle woo teg mhm. nañ fi décret woo décret woo ah lu ne teg nañ ko fi pour participer à la baisse du prix euh, li nga xamante ne ni moom mooy loyer bi. mais toujours li suñ problème mooy. concevoir rek la ñuy def te mhm. concevoir mbisaan dafay faral di wax naan concevoir est une chose mais appliquer en est une autre concevoir baax na waaye mhm. di appliquer moo gën parce que le gouvernement du président Macky Sall ba génn mhm. loolu daf cee ko ci teg ah. euh, waaye loi yi bëri na loi yi boo koy wax fii doo fi jóge de uh-huh. loi yi bëri na bi sur le prix du loyer dara lañ ci respecté wul parce que tamit dafa am loi loo xam boo ko tegee dafa am ay préalable yoo xam faaw nga corriger ko pour loi boobu mën ko ñëw mu jàll ci yoon mooy mhm. application bi du def defo mhm. mais boo jëlee li nga xam ne ni moom mooy loi yi nga bëgg ko wàññi te alors qu'à la yaa ay fer li ñuy tabax mhm. fer ciment ah ndox yooyu yëpp yëpp a cher léegi kooku du jël tamit këram tabax ko ba pare xëy na ak yow règlement yi nga xam te ni àndul ak moom mu ñëw bëgg ko wàññi wàññi dafa am fu muy njëkkee mooy ci mooy les les les li préalable mhm. loolu la ñuy a wàññi su mhm. ko defee bu ñu yeggee ci logement yi mhm. wàññi day daal yomb mais daal en loolu bokkoon na ci gis nga gouvernement bi génn donc bii di ñëw bii ni nekk fi sonn na trop. sonn na trop li mu war a li mu war a rectifier ci moo xam dafa bari euh, ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy la sortie euh, de Momat euh, Talla Ndao bi nga xamante ni moom mooy yor wàllu urbanisme ak li nga xamante ne moom mooy wàllu location bi ce moom mooy que ni ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon muy l'ancien régime a essayé en termes de solution mais nu nous sommes là avec un programme qui va reposer sur un certain nombre de dispositifs et de mécanismes donc loolu leen la wax mu ne selon lui il sera question pour l'État de veiller aux intérêts des locataires sans léser les bailleurs loolu mooy la grande question naka la def ba wàññi location bi waaye aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom kër yi ñi moom seen kër di louer ñooñu kenn du leen léser donc pour trouver le juste milieu donc je pense ni c'est là pense que c'est là où euh, l'ancien régime avait péché nous allons mettre jouer sur des leviers tels que la TVA et d'autres mécanismes financiers dans le but de permettre aux promoteurs immobiliers de pouvoir sentir un allègement sur les impôts et taxes afin qu'ils baissent le coût du loyer donc loolu mooy euh, ñoom li ñu jàpp ni Mbisante ni bu ñu ko defee xëy na mën nañu trouver une solution boo xamante ni solution bu sénégalais yépp di saluer la pour effectivement euh, mën a sentir la baisse du loyer ban jàngat nga ci amal euh, la sortie de Momar Talla bi nga xamante ni moom la ñu dénk loolu doon na li nga xam ne nii bëri na luñ koy annoncé. bëri na liñ ci jël ay mesures. ngir euh, alléger fardeau bi ci ñi nga xam ne nii ñooy euh, loué kër yi mais lu ciy bëri tamit euh, day day lajj. parce que tamit situation bi day wéy di des. parce que tamit lu luñ ci mën a jàpp mooy ne. état bu doon jël ay mesures daanaka les locataires rek la doon bàyyi xel effectivement. mais tamit nit ki tabax këram hmm? jënd ciment jënd fer wax nga léegi taxe sur la valeur ajouté ak yi demee noonu lépp mu supporté ko kenn dimbalewu ko nga ne ko nag léegi li ngay lowee sa kër dafa cher loolu tamit ah bu ñu waxantee dëgg rek xam ne tamit am na une part d'injustice bi nga xam ne nii mu ngi ci biir mhm. ah, li ma dégg nga wax nee nañ dinañu teggi TVA yi donc commencé nañu sóor kon ñi nga xam ne ni ñooy les promoteurs immobiliers ñi nga xam ne ni tamit ay sénégalais lañu. Mhm. ñoom tamit peut-être loolu rek la ñuy liggéey. Mhm. aussi war nañ leen jàppale ci benn boor laataa ñuy jóg nag di mhm. jàppale peut-être les locataires ngir woyofal seen poche parce que buñ ko waxee. dinañ ko waxaat mooy euh, loyer bi métti na. bu baax a baax ci sénégalais yi mais aussi am na leneen li nga xam ne ni war nañ ko promouvoir. sénégalais yi di doon propriétaire. am na ay mesures absolument absolument parce que tamit dafa doon dem ba doon benn mit benn mbir bi nga xam ne ni c'est presque inaccessible mais avant dafa doon war a doon benn accès bu démocratique mhm. parce que tamit euh, ñoom lu leen sas bokk na ci ah yi ku ci ne en tout cas ñi ci bëri jéem a am toit

Euh, les logements sociaux mais aussi gën a dëgëral SICAP parce que SICAP je pense que ni bu fekkee en tout cas amul réforme bu ñu yëgul SICAP toujours là. SNHLM aussi est toujours là. Mhm. donc ñi nga ñoo ngi fi ñu dooleel leen ba vraiment. Euh, ci li nga wax noonu Sénégalais yi mën a jógee ci location am ay dëkkuwaay. nga xam ne ni régime bu ñuy ba fi jógee mu ko doon déroulé. <laughs>